day topp Kouthia di ko suivre bu baax a baax a baax ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm waaye mbokk yi guddump dañ jëm seeti ki nga xam ne mooy suñu soppe bi moom tamit euh, dafa am euh, wax ju mag joo xam ne ñu naan ko Olivier Bougal yor mouvement guddump debout dafa soxla mairie bi mankaañ la nag mais dafa soxla mairie bi mankaañ bu dëgg wolof dafa soxla mairie guddump créé mouvement bu tudd mouvement guddump debout mooy GD gudum dëbu moom la ñuy seeti mankaañ ba ca discours ba nga xam ne dafa wote waa gudum yëpp génn jox bopp xale bu am jom gi ngi nii ñu seeti ko. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant soo leen waxee Olivier Bougal mankaañ bu mag baa ngi nii dama ciy kontaan. mouvement bi ñu taxawal nag di mouvement Goudomp Debout. dëgg la muy GD. mouvement Goudomp Debout. Goudomp développement. Goudomp boo xam ne dafay indi li nga xam ne mooy divertissement ci biir dëkk bi. dafa jot nag ñun doomu Goudomp ñu téyel suñu bopp li nga xam ne mooy suñu territoire. Euh, nekkuñu ci parti état. faruñu ak opposition mouvement la boo xam ne ay doomu guddump ñoo taxaw tey daal di may soññ ne ma kenn duñu jiite ku dul koo xam ne dafa nekk ci guddum joroo guddum màggee guddum di développé guddump kon ni ngeen ko waxee may mankañ <laughs> waaye dama ne du ma jiite ay mankaan kese. Mm-hmm. ndax boo ne guddumtu wax nga xeet yëpp fi nekk. Mm-hmm. soose ngi fi joolaa ngi fi olof ngi fi bambara ngi fi séeréer ngi fi xaalpulaar ngi fi bépp làkk boo xam ne dafa juddoo Sénégal rek dajaloo na biir guddump waaye nag bokk yi. Mm-hmm. dama leen bëgg xamal ñaar nag. guddump dafa jot nag pour ñu daal di koy développé. sortie bi ma def nii muy sortie officielle. pour wane ne ñun waa guddump du ñu nangu ku ñu indil keneen ku dul guddump di doomu guddump la am dañ koy jël ko dugal ci guddump yaakaar ne buñ ko defee ci biir gudum gudum dina mel ne yeneen ville yi nga xam ne duñ leen ñee ci dara du wonowu la mankaño jabana ko mankañ duwula kan nu manina kantana wuru kono duwuna ba duwuna barana wo bajolo ni ka ba do loolu si suñu làkk mooy wane ne ñun doomu mankañ jom lañu am ku ñu jiital doo am gàcce mukk ci joxoñ ne kii nañu bëgg wóoloowu ma daadee ñëw li ma leen di xamal mooy nit ku nekk danga am gëm-gëm ak pas-pas. Goudomp dañ ko war a defar. développer li nga xam ne mooy artères yi teritoire bi. ci jaar-jaar ak route yi nga xam ne baaxul. dañu war a jugee ci époque boo xam ne. époque coloniale la ay root ay teen yooyu yëpp dañ ko war a dépasser taal làmp yi jàppale la jeunesse jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk gudub gis seen bopp ci li nga xam ne mooy développement territoire bu gudub gudub dëbu mooy ñun ñëpp ñu daal di jógandoo taxaw te gudub mu daal di nekk loo xam ne territoire bu leer la ci biir Sénégal duunaɓoɓe babu dunkana ah. duure keɗo duuli ah. maale yo bampana duwane na duworo duna mankañe bayakanaga mankañ ñun dañu am jom doomu guddump boo ko gisee bañul li nga xam ne mooy dëkkandoo ak keneen ndax dañoo yaatu solidaire mm-hmm. te dafa jot nag guddump mm-hmm. ay doomam daal di koy defar teg ko ci yoon yàlla may nañu am nañu ay partenaires ci àdduna bi mun nañu uti ay financement si suñu ay relation mm-hmm. ba mën a jël guddum def ko vitrine tourisme boo xam ne ku ñëw guddum xam ne ne du dëkk bu ndaw mm-hmm. war nañ ko mën a def avec les moyens yi nga xam ne moom la budget bi joxe pour ñu doxal ko mm-hmm. ñun ñëw ci guddum pour lekk guddum waaye dañoo ñëw pour guddum jëriñoo ñu kontaan naa kenn ku nekk ak sa cosaan ñun waa ñun ñun mankaa ñi bu ñuy fecc ñu mel ne kuy dawal vélo moo tax li vélo di gaawee moo tax ñu bëgg suñu lépp daanee gaaw moo tax nga ne looy wax gudub